mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne sama papa ngi noonu sama nijaay ngi noonu Moustapha Guèye papa maa ngi lay nuyu. jërëjëf naa nuyu moom fii. Euh, noo dundee tey bisu daje bi nga xamante ne Modou Lo woo na ko presse. am ci mbégte rek ak euh, contentement. parce que ñun làmb la ñuy dund. mu nekk suñu suuf nekk suñu sudit euh, ñu jëf ci suñu waar bàyyi suñu doom di jëf seen waar ah mu xew rek ñëw présent pour wane ne ñun nit lañu. et eh, nit làmb nag moom nit làmb la rek tey jii moom retour bàyyi la ci làmb lu nit ñi namoon la dëgg yàlla ku nekk xam na ne bientôt un an dara yëngatuwul te jii ne bu ñu ko waree dekkal mu jóge ci Luc Nicolaï Enco le grand champion roi des arènes def point de presse ah teewaay yu ñëpp daf fiy jaadu pour wane ñun làmb dafa nekk ci ère bu bees ère bu bees mooy dañu am un nouveau président bu tudd Bira Sène mu ñëw remettre les compteurs à zéro lépp pour la bonne marche de la lutte encadré nag par des lutteurs des promoteurs le monde de donc vraiment dañ ciy jaar rek saluer acte bi nga xamante ne le ministre des sports Matar Ba posé na ko lépp rek pour bëgg làmb dox ñun nag képp koy doxal làmb dañu ànd ak yow langaam la ñu doxal làmb képp ku bëgg yàq làmb dañuy jàkkaarloo yow defante ak yow pour nga bañ a yàq làmb ku xosi làmb daal kon daanaka ñun ñëpp gàjj ñu damm suñu tànk damm suñu yel waaw euh, li ñuy bëgg a mooy Modou daje bi tey euh, njort lan mooy sabab bi waaw moom mooy combat bu ñu monté depuis euh, saison bi passé et yàlla dogal covid bi jaar fii yàlla dogal làmb war a nekkaat war a tijji et grand promoteur nag Euh, Luc Nicolaï organiser combat bi nga xamante ne ñëpp yàkkamte woon nañ ko. muy combat boobu mosagul am ñaari mbër yoo xamante ne ñoo commencé woon a gam-gam loo ca Mbapat. kenn daal moo romb ca Mbapat mu ne ko xale laa woon boobu temps léegi dëgg ñëw Ama Baldé di liggéey. di liggéey ba mérité bëre Modou Lo mérité xëccoo titre roi des arènes combat bi enjeu bi ki nekk dafa extraordinaire pour Ama Baldé comme pour Modou Lo Modou Lo dafa war a confirmer gannaaw bu mu a daan def ci ay victoire yu jeex ba keroog yàlla dogal la muy dogal. surtout mu jëlee raay bi biir Pikine di bëriwaat ak beneen xale boo xam ne doomu Pikine la. c'est dafa kawe. level dafa yéeg ba ci kaw fu mu ne nii donc nag bokk na ci les meilleurs de cette saison. pour ne pas dire le parce que y' a aussi d' autres te combats yëpp ñun ñëpp benn la ci ñun yëpp war a neex yëpp war a baax yëpp war a réew sa làmb ndax saa bu ñu fàttali ne làmb pour ñi nga xamante ne làmb la ñuy dund. c'est une sax grande aussi pour le CNG bi fi doo a ñëw ndax nombre de combats yi taxaw te CNG tijjeegul CNG sax amagul woon musul am ci Sénégal bi Sénégal day am ba léegi. dañuy continuer VIP man sax la VIP duma ko apprécier trop parce que mbër mbër la ñu. dañ ne bu ñu compter dañ naan fukk ak benn nañu wala fukk ak ñaar fukk yëpp am nañu combat. booy xool sax kenn moo ci amul combat si ñuy woowee VIP muy Gris te j'espère que bientôt bunt dina ubbeeku mu am combat parce que dafa am dafa war donc léegi. combat bu neexee lay doon combat bu neex lay lii nag ubbeeku la ci làmb rek làmb moo ci gagné kon boog muy amateur muy promoteur muy mbër surtout mbër kuy naab mbër ngay njëkk a naab parce que ñoom ñooy baaxal ñooy yàqal dañuy respecté charte yi respecté dugg heure dugg respecté les signatures de contrat parce que loolu moo tax aussi yëf yi dellusiwaat parce que mbër mooy defar mbër mooy yàq image mbër. le promoteur di jaay pour combat am neex mu mun am sponsor heure bi jot waaye nga ñëw heure bëri jot nga bëri ci fulaak fayda nga daan oo nga daanu làmb dafay continuer des làmb donc làmb ji ñoom ñu koy jariñoo muy mbëri ñoo ci ñoo ci les plus gagnants làmb nag bu kenn fàtte ne mbëri ci gën a gañe ki ci gën a perte nag mooy amateur ndax amateur mooy fay combat am ñëw toog di xaar combat benn xale jóge fi la ci àll ba fekk mbërë muy sota ko saafara mu jàmp paaka mbaa mu xëccoonteeg moom seetaan am combat du am amateur perte su boobaa maintenant nag mbëri ñoo war a defar loolu ñoom ñoo ko war a taaral ba mu taar ba ku ne bëgg ko su boobaa kon cachet yi na fi ñuy jooy cinquante millions cent millions deux cent millions lam moment bi bu ko mbëri fi ñu ko doon teg da ngay jékki-jékki dégg mbëri bu ñu fay milliards c'est possible les boxeurs aux États-Unis on les paye des milliards les footballeurs on les paye parce que dañuy soigner seen image di respecté yëf yi heure d'entraînement sax ñi mawul Sadio Mané ñi mawul ñi mawul ñi mawul tey ji Liverpool ne ko cinq heures ngay ñëw entraînement mu ñëw cinq heures deux minutes xalaatu ko sax war a dund respecté teg seen biir ku ne jox sa morom cër te xam ne ku ci nekk yaay sa marchandise morom. voilà après grosso modo daal euh, moom fils loolu daal laa bëggoon may en attendant les événements. mais am na lu ma bëggoon xam tuuti mooy combat bu mel ni Modou Lo ak Ama Balde est-ce que mën nañ ko pare janvier ñu bëree ko ñoom ñaar. ah dafa mel ni kon dina xat dèjà sax pour lamb gi démarrer janvier rek c' tout un problème. parce que waa camp bi nekkee Modou Lo nee nañ bu ñu sañoon le premier janvier ñu bëri Ama Baldé tàqale ko moom. waaw euh, c' normal loolu mooy dañoo wóolu seen mbër mooy seen mbër gis ngeen ko nag ci réseaux sociaux yi muy wane état de état physique boo xamante ne na ñëpp ba mun naa bëri suba waaye nag ci lu ci biir loolu ba tey rek moom mooy Ama Baldé dafa tëju làqatu kenn gisu kenn dégg ko dégg ko mu gën réseaux sociaux dégg ko mu def interview dafa ne pat nekk ci ruqam ah certainement nag Ama Baldé mën tam combat bu tal ni Modou Lo di xëccoo gi trois di trois arènes te parewul kon daal ci gàttal daal li wërte wul mooy ñaari mbër yi ku leen tegoon fii léegi ñu bëri la fi 50 minutes te duñu sonn ndax war nañoo pare ndax préparation bu leen fàtte ne bientôt tam mu jege si un an yàgg na ah, ah. ah la jërëjëf papa Moustapha Gueye ma koy siyaaraat bu baax a baax a baax su suñu papa la euh, bokk ci làmb kenn du ko présenté mbokk yi damay nuyoo fi may nuyoo père Moustapha Gueye ñëw euh, lëng ma nga gis ni rek euh, papa la boo xamante ne xam na doomam xam na valeur doomam ñu koy ñaanal gudd fan ak wér noonu leen di nuyoo tey ñu ngi